nga koy tey. démb jàmm andi sama ma ne. lépp lu ñu doon atee woon sax. six mille dem six mille day muy douze mille. am na bu amul am na bu kii. am na bu amul may am na bu amul mayonnaise. xanaa kon bii la kon bii. mais am na bu amul mayonnaise de. waaw souvent bi mu def ci mbuus bi mënul am mayonnaise. est-ce que du boobu la. toog jëlal fële. sooy looy bañ ci mayonnaise. maya ne so kalbe lalalala demba dañu koy sawa police moom arrêté tey ndànk partage eh, Assane mooy tudd dëgg micro boobu micro bi teg ko topp yow micro pulaar la dañuy def émission micro bi pulaar la émission bi ñu ko duggee micro bi micro bi ah, émission bi duré émission bi duré dama top dekk li doo ko jëmale fee eh, il faut wëndeelu. bant ya la ñuy ndekkee ñun bant ya. man non man ma xer ba laay ndekkee xer ba. xam nga bant ya. Moodu mi. Moodu la ci dugal. Moodu la am xam nga jugee nañu tur yaa ngi dugal ci bant ya yow yow yaa am ci teg da ñun amuñu teg teg. yow ñun teg teg bi xamuñu ko est ce que sax Moodu jëndul teg teg uniquement uniquement pour bant yi. pour day jël waa ji 2500 la pour. eh Assane xoolal lii publicité la. ay não la ah. non lii rek. meew meew mi ngay publicité. meew mburu mi não suñu yoon newu ci dindi ko fi baaxul. non meew jëluma ko jëluma ko. não bi nag. toppale ko. toppale mburu mi mburu mi publicité la. mburu mi ku koy koy publicité ban kii. ah. mburu mi si sa. salaam. salaam. muy la suukar yoo xam ne duñ mën a dem armée de. <laughs> am na suukar yoo xam ne duñ ko muy suukar yëpp. kañ mooy suukar suukar yëpp. kañ mooy suukar suukar yëpp bi waaw. ah suukar daal day sax nag. voilà bu question suukar day sax. suukar da nga ko war a teg ci temps. am na moom dinaa nangu waat café. góor benn jabar dama mi ngi nekk moom. Ah, ay coow góor benn jabar. suukar suukar la ah, suukar la. man bu dugalee gars yi ko naan day lem. non démb yaa suuf ma yëngal. mu soob. am na. mu soob. suukar. mu yëngal. noo yëngal. Jangan mel ni mburu ada tànnale bu dee bu dee. moo tax mu sax bu dee ma ñam ma ñam ba xam tàggal ma. tàggal dina ñam ñam de. am na ñamal wala. ñamale ñamu ma. est-ce que saa suuf dara. non tàngut de. yow baa ngi lay ah. ay rajo yow. ay rajo. ay kaaj rajo yow. mooy gaaw. mooy gaaw. gars affaire yi wàññeeku. bu am non mais mais mais mais booy bi. li mu ñëw Dakar waroon ñëw Dakar. ah heure mi mi bee dañ waaw. ah léegi nag garaaw bi ndeysaan bu koy dégg ku baax la. booy bu baax la quoi. fi mu toll nii campagne bi mu jógee. dafa am yu bëri yoo xamante ne bii ne eh, yow Assane ndànk Assane. Assane eh. eh, eh. Assane li nga xam kon yow yaa yow kon yow ndekete yow yaa ñu rey. li nga di ngeen jabet di ngeen jabet de. eh demal fële sa place. ah may ma. dañoo bëgg a dem Allemagne. Eh, kañ bi def ko Dakar. <laughs> eh alors alors li nga yoroon doy na pour ma doy na doy na balaa dugg si gën a seey. waaw ah dugg si baax. non tàngoor gi ah? tàngoor ah? hmm. si man. defal ma fi tàng na wala tàngul. tàngul nee na tàngul de. dafa seet. Hmm. nga bu duggee baax na. kaay defal ma fi kaw. mu ngi tàngal. Diop mbaa la yor la kuréel la. dafa man baax na man moom baax na. dama bëgg laaj xaal bi ñànkal boobu. kon xanaa da nga koy xalaatatu. waaw kenn xëcculoowu la ca kaw. kaas yi nag dafa xaw a ah yow kaas. dafa xaw a dafa mel ni candidat yi dañoo xaw a sakkan. rang muy dem ci bant. lii dafa maa seetlu. bisimilah bant yàlla ñu joxe li ñu. Assane. Assane. léegi bu la waxatee. Hmm? ba ba arrière génn. te loolu di ne xam na ñan ah, booy yi. waaw dañu dañ ma booy yi naan ma ne booy yi da ngeen a xam. mais man xam naa leen demee nga da gaa di leen wër xam nga leen. Fatou Ndiaye mi ma ko xamoon tey du ma fi baax. dugal yëpp tey xam ne. jël nga gën a wax asma bi wala dëgg garab gi yore ñëw si yow. asma bi waaw. parce que Aliou Fong mooy nekk Sofóor. Aliou Fong mooy nekk Sofóor bi woon na la. waaw baax na waaw. yàlla xam nga maa ngi wax ay dix heures ay dix heures. Eh, tey tey bu ñuy génn. lundi liggéey wala duñu liggéey. waaw ah, asam moo ko wax. maa ngi def loolu. ay odo la jël partagé ay euro ak montre bi Assane Samba Mbayanam Diagne bëgg na koo xam ne moom jël partagé yaa ngi dégg démb waaye jox na xam nga la ko jox da jox 20 euro ak 50 euro waaw 70 euro la tamit dafa am lu fenn ah heure na def Assane boo heure na def non nii xool bu neex sant rek am bëgg son bi da leen di déglu. xool ku gën a neex baat. ku dàq wala wala ku dàq <laughs> kuy tànn way. day seet way bu ko neex ma seet way bu ma neex. ok njëkk la démarré. dama la nuyoo rek man nga fayee ma bakkan ci laa yëg ni am na lu xew. <laughs> Bila kena sampah, yakin makanya Arifan mala gis xametuma la. Ba wo. C'est ça. Ndànk rek gaay. Ah ndànk rek. Na jiitu na jëf tuuti nii. nga fayee ma bakkan. Kii amna yëg ni xew. ñëw am na lu xew. am naa lu xew. am naa lu xew. am naa lu xew. am naa lu xew. am du ñu xëy. am na lu xew. ndax talaata la xool ba xam am na lu xew. am na lu xew. am naa lu xew. am naa lu xew. Moodu am na lu xew. am naa lu xew. Top am naa lu xew. am naa lu xew. Mouhamed am naa lu xew. am naa lu xew. li xew mooy du moo xamul ba xam danañ xëy. am na lay. am na loo xew. am na loo xew am na loo xew. mi ngi wax. da ngeen di way. waaw waaw. waaw la ba ah, ah, ah, dégg. lu ne waay def waay. waaw lu waay la. am na lu waay. am na lu waay. waay la ba dégg. waay la ba dégg. waay la de. waay la de. waayal. ba waay da ngaa war a waay ba waay da ngaa war a waay waayal. way mi nag du wayu caaxaan. Mm-hmm. ah day wayu caaxaan. waaw. ngeen koy déglu. muy kàngam boo xam ni moom lañuy ñuy wax le grand Souleymane Faye mhm. gént naa bi egg ci kër gi muy dikk ñolloor buntu kër gi tëje na mari dem naa caabi bi ma naaru gànnaar bu ñuul bi ci bitig bi mu ne tey def ci suba gisuma ko sunu dëkkandoo bi soxnaam ni dégg na xale buy jooy di njir nekk xale baa ngi jooy ni bàyyi ana yaay boobu

mari dem naa caabi bi jël naa daal macha allah. nga ne nee moom caabi ji caabi ji. Mm-hmm. man ma ne ko yëkkati su ma xool sa aja ah! aja yëkkati ma xool sa ah! du ma jënd jaani fa. Ah! yëkkati aja du ma jënd jaani ma xool sa boyanti. waaw. asaado. ah dana doy waay kat. doy na la. wayal sagaago wayal. ma ne tëjal. sagaago wayal àgga leen. wayal. wayal. bu dee waa dee wayal rek. parce que moom wayal amul harmonie jéem a joxe. wayal wayal boobu harmonie nga koy def. demal rek. kooku la daal. ban la. dégg nga avancé bi. ñu dem ci. way bii nga xamante ni ngand mi moo ko way muy le grand Omar Pène nga xamante ni macha allah euh, ay wayam jarul ngay tiit asan ni mel nga wax ni wax ñu jël ko mu leer hmm. <laughs> waaw kon xam naa nañu bàyyi ba suba ñu yekkale way hmm? tàngi waaw tëjal ba suba. stop doy na joxal son bi. joxal mu joxal Modou ma joxal Modou mu dugal générique ma dugal générique ñu commencé.